sax chance su xam ko bi muy dund mosuma jëflante ak moom aussi waaye doon naa ko gis de loin gis naa aussi ni mu porté ay jeunes gis naa ni mu dimbali le monde de la culture euh, à un moment donné aussi tey témoignage yu bëri jóg na foofu ñoo xamante ni à partir de rien du tout la leen yëkkati euh, porte leen boobu benn télévision rek moom moo fi nekkoon donc pour percer c'était pas du tout évident te moom def na ci lu ama am solo ba ñooñu ñëpp euh, c'est des gens yoo xamante ni dañ ko redevable tey ji man foogoon naa sax ci wàllu culture ci kii bi rek mais ba ci wàllu artisanat hmm. ndax tey am na ay tailleurs yu bëri yoo xamante ni wax nañ ne moom moo leen organiser à un moment donné c'était pas évident wax leen ne leen da ngeen war a organiser pour mën a gagner ay marché donc ñooñu ñëpp témoigner wax ne tey jii bu ñu demee bay gagner marché ba ñu reconnaître leen moom moo ci dugal loxoom. donc beneen bi aussi mooy mu amee woon mission de service public boo xamante ni aussi doon na ko assumer e franchement wala di ko jaale njabootam di ñaan sunu borom euh, xare ko àjjana jéggal ko yërëm ko et puis teg loxoom ci njabootam gi nga xamante ni moom la fi bàyyi muy njaboot goo xam biologique la. Mhm. mais ak njaboot goo xamante ni mhm. adoptif la tout simplement muy tous ces gens là yi nga xamante ni ñoo màggandoog moom dans les années quatre-vingt bokk dans le monde de la culture. Charles. der xanaa day day métti nga am lu ngay yokk si loo xamante ne moom la Pape Djibril wax ñu ko jaale jaale ko Sénégal jaale ko ay bokkam di nekk euh, Moïse Ambroise Gomis euh, amoon na ñett yoo xamante ne boo ko gisee ngay xam dafa amoon discours mm-hmm. am organisation am méthode ba pare on se rappelle de génération 80 parce que c'est avec notre génération la koy lancé dans la ay fin année 70 début 80 génération 80 bu mu koy indi mu am tey ay stars yu bëri yoo xamante ni si ay loxoom lañ jaar foofu lañ qui qui ont été découverts comme na Kouthia il a été découvert par Moïse Ambroise Gomis ak ñeneen ak Pape Cheikh boo xamante ne fii na jaar na fa tam mu ak yeneen ak yeneen euh, un homme de culture defe naa il a rendu service à la culture su euh, fànn yu ne euh, nekk fii directeur le premier directeur de Miss Sénégal c'est aussi lui amul lu mu fi deful daal si wàll euh, si wàllu liggéeyam oh, lu Sénégal perd un acteur culturel bu am maanaa de très grande taille dañ ko ñaanal yàlla yàlla saare ko àjjana jégal kaay bakkaaram ñàkkul ba yow ci wàllu yëngu-yëngu yi jëflante nga ak moom waaw lu bëri mhm. lu bëri der maa ngi nuyu ñëpp ah wax que ni malheureusement Euh, xam nga à chaque fois temps yi surtout affaire yi dafay dafay xaw a tar tuuti mais effectivement sama sama chemin bokk croisé naa ko si lu bëri sama sama grand bu bu baax la woon boo xam ne liggéey nañu lu bëri bëri bëri bëri temps bu ma nekkee surtout bi ma nekkee ci wàllum production mais comme li Pape Djibril doon wax rek moom arrêté wu rek si télévision ak musique defe naa ni tey jii nii ñi nga xam ne ñoo nekk ci mode euh, defe naa bi may njëkk dégg Collé de Sowa ñeneen ak ñeneen ak Oumou Sy ak ñoomin seen je pense que am na liggéey bu am solo bu mu ci def man yi gën a siiw Sénégal agence am yu si gën a bëri moom la moom la moom ci moom la jaar cheveux naturels yi bu demee sax ba am benn empleur bi si moom la ñu sukkandikoo vraiment aussi bien si mode bi que si si culture en général dafa nekkoon nit bu am solo ci média euh, je sais que tey jii nii tous ces ces ces animateurs de télé ces présentateurs de télé mu mel ni Pape Cheikh Diallo Boubacar Diallo euh, et cetera et cetera am na lu bëri loo xam ne peut-être jël nañ ko ci moom parce que euh, depuis Maguette Wade ba ba Maguette am na ay moment moo fi nekkoon lu gën a bëri après bi Moïse ñëwee aussi flambeau bi moom moo ko jox génération boobu donc vraiment li amal nañ ko njukkal mu nekkoon nit ku ku am njëriñ ci Sénégal ci am njëriñ ci culture ci kër gi yàgg nañ fi toog def ay émissions yu am solo te mu nekkoon ci benn télé boo xam ne moo yoroon monopole bi yëpp donc soo jaarul à la limite doo doo siiw je pense que kenn mënul wax Moïse Ambroise Gomis te te waxoo jàppazon jàppazon mm-hmm. di nekk émission boo xam ne vraiment def na fi ay jaloore am permettre na artistes yu bëri ñu ñu découvrir la te si moom la la la jaare woon donc vraiment c'est c'est waaw c'est douloureux pour Sénégal yëpp ku ñu perte yàlla na ko yàlla xare àjjana comme ni ñu koy wax Malal. waaw Moïse euh, baax la parce que bu ñuy bu ñuy wax Moïse Ambroise Gomis on se rappelle effectivement de Antenne Midi de Midi Première de Miss Sénégal de beaucoup de choses quoi et puis il avait une voix assez particulière nit la bu amoon bu amoon pas-pas am ngëm-ngëm ba pare di jox fulla li muy def parce que dans nos pays effectivement di gérer ay di liggéey ci mannequinat c'est pas très très simple et je pense que liggéeyam boobu liggéey bi tey bu amee benn doole bu mu am moom am na rôle bu mag bi nga xamante ne euh, joué na ko si également ak yi nga xamante ne jox na jox na ko ndaw yi nga xamante ne ñooy yëngu ci secteur boobu yàlla na ko yàlla yërëm te yéexi amin alors euh, suma ñaari gan ñi fi toog gum tam ñoo la Abou Mbaye euh, président rëccu falaat mag yi yegg si ma jox la kàddu gi ci hommage à. ko ñaanal parce que ni ko ñëpp waxee. Moïse Ambroise Gomis marqué na la culture sénégalaise d'abord mm na aussi la télé parce que je me rappelle euh, émission yi mu doon animé heure yi ñu ko manqué daawuñu ko marqué daawuñu ko manqué lu moins à chaque fois émission bi dañ ko ne dañ ko doon xaar euh, donc dafa nekk koo xam ne vraiment dañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm te yéexeñu euh, marqué na l'art l'art sénégalais marqué na ay artistes yu bari donc yàlla na ko yàlla yërëm rek loolu lañ koy ñaan tey ndax euh, li ñu wax rek ku nekk di nga am bis bu nii comme mooy jiitu dañ koy ñaanal rek yàlla suufal sedd suuf si kawam Mamadou. Ah, yëpp di associé wu également si jaal ji euh, Moïse Ambroise c'est vrai que comme ni ko Charles waxee mu ngi naan année quatre-vingt man maa ngi judd année quatre-vingt donc je pense que li ñu xam ci moom. taxu ko bëri noonu mais tombé nañ quand même vraiment muy nit koo xam ne marqué na époque am donc euh, loolu moo tax tey mu war a am des un hommage mérité hommage yi nation bi yëpp xëy na situation dëkk bi fi mu toll la moo tax mais leer na ma ne bu mbir mi demeewuloon noonu ñi koy gunge tey dina ñu ëpp mille fois ñi nga xam ne ñoom ñoo ko gunge donc di ko ñaanal yàlla fa mu jëm gënal ko fi mu jóge Papis ziar naa la. waaw ma ngay delloo it am na loo ci war a mën a wax. non am euh, boo déglu gars yi mu ma xew kay pour rek boo xamante ne xëy na jar ñu fàttaliku référence bi nga xamante ne moom la nekkoon. et que aujourd'hui gars yi nañ ko am na ñu bëri tey ñu embrassé métier euh, télévision quel que soit niveau bi ils ont été inspirés par par par Moïse. pour mm-hmm. énormément de raisons bi nga siy njëkk a jàpp bu njëkk taxaw mooy euh, professionnalisme bi nga xamante ni moom la moom la véhiculé ba pare. Mm-hmm. Euh, élégance bi élégance bi boo wax élégance nag dafa élégance dafa mm-hmm. dafa yaatu. élégance dafa départ ci corporel jàpp ci esprit sa à dire c'est quelqu'un qui n'a jamais frustré quelqu'un sur le plateau du wax wax bu ñagas du la wàññi du la néewal doole toujours jovial. est toujours présent pendant des années longévité yombul ci ci ci la scène il faut être exceptionnel wala nga am lu particulier moo lay tax nga mën a nekk sur la scène devant pendant un certain nombre d'années Moïse la la réussi et mhm. il fait partie des Sénégalais yoo xam d'ici 50 ans di nga li mu li mu def wala nga tuddaat turam tout simplement parce que dans son pays fi mu dëkk fii dafa am yoo xamante ni moom moo ko porté moo ko proposé aux Sénégalais am xam ne ba léegi ñu ngi fi banqaasoo donc son œuvre sera perpétuelle euh, comme tu l'as dit euh, Ngom c'est dommage que mu tombé ci contexte bi cela nous rappelle encore comme ay kaw Pape Diouf des gens qui sont partis qui nous ont quittés comme ça et kenn malheureusement on ne peut pas leur rendre hommage parce que le contexte ne s'y prête pas bref pour ne pas être long yàlla na ko yàlla yërëm xare ko ak ñu amaat yeneen Moïse Ambroise Gomis yu bëri yu tegu ci ginnaawam pour le bien-être et le euh, bien du Sénégal euh, DER alors Pierre da Silva dañuy continuer jaal rek xanaa ndax euh, xëy na bi ñu yeewoo tey cinq ñoo faatu woon ci coronavirus bi jamono ji ñuy àddoo ci diggante bi ñu ngi ci 47 47 euh, ñaar ñu góor ñoo ko def kenn ki 65 ans la am euh, mi ngi gaañoo fii ci hôpital Fann keneen ki 60 la am 65 ans la ki njëkk décédé 65 ans la am tey jii nii keneen ki 60 ans mi ko defee ca Touba kon Sénégal jamono ji ñu ngi ci 47 décès ministère de la santé jaaree fa ni ngeen koy gisee nii ci communiqué bi waaye ñun ñit di massawu njaboot yi nga xam ni loru nañ ci ak képp koo xam ni tëral na la ñuy ñaan yàlla mu fëgg sa bopp yëkkati la Pape Djibril ci foofu nga. oui en fait pour dire aussi que loo xamante ni aussi man tey laa ko découvrir que Moïse Ambroise Gomis mm-hmm. aussi a beaucoup aidé les gens du du milieu des sports. Mm-hmm. parce que à l'époque aussi la télé était perçue comme benn kii élite la woon quoi. Mm-hmm. donc permettre à tous ces euh, jeunes talents ñu pour ñu mën a éclore pour ñu mën a génn aussi je pense que c'est important bon c'est vrai que on est nous sommes en temps de pandémie mais bon loolu aussi ñu yóbbu ci ñu bañ a jox nit ñi li nga xamante ni moom la ñu moom parce que aujourd'hui on dit vivre avec le virus donc tout revient <laughs> à la normale en réalité mm-hmm. donc euh, nekk euh, c'est vrai que il faut que ñu ñu ñu digne de leur rang mais leneen li ma ci jàngat tey mm-hmm. mooy tous les acteurs de la culture bu ñu toogee ba gisatuñu leen rek il faut que nit ñi aussi jéem a xam ci lan dañu nekk parce que man fii da ngay toog ba càgg dootoo gis kenn rek ba càgg ñu ne la il est parti dans le milieu du sport et dans le milieu de la culture loolu aussi c'est bien beneen bi aussi mooy honnêtement c'est-à-dire que mënuñu considérer ne nit nekk na jox presque trente ans de sa vie wala 50 ans wala 40 ans de sa vie et que un baobab qui tomb comme ça mais en réalité ñi nga xamante ni ñoom ñoo censé représenter la République mais doo fa gis kenn moi aujourd'hui j'étais là-bas et je déplore certaines absences par exemple yoo xamante ni aussi bien du milieu des sports que du milieu de de de de la culture loolu aussi pour man c'est extrêmement important